moo ñu desee dañu am beneen émission boo xamante ne mi ngi ñuy xaar. te <laughs> am nañu ñaari question yoo xamante ne dama bëgg nga résumé loo ko rek. na ñëw bi ci njëkk mooy gis nañu le choix de Macky Sall bi tànn Amadou Ba. pour mhm. candidat Benno Bokk Yaakaar. Mhm. ñu gis ci ay frustré. Mhm. comme li amoon ci parti post euh, socialiste. socialiste Fapal ak ñele ñu gisaat ko encore en 2008 bi Macky Sall di génn. kii di Boun Abdallah Dionne nga xamante ne mosul weddi ndigalu Macky Sall pour la première fois mu weddi ko. Aly Ngouille aussi génn imposer candidature am. Mhm. kii di euh, Mame Mamboy Diao aussi. Mhm. teg candidature am maanaam muy tey suñ ko xolé xayma quatre candidats ci ben parti. Mhm. est-ce que lolu tay mënul jural ben blocage candidat yi nga xamante Macky Sall tan nako ndax té ñu frustré woon. ci bir APR amuñu poste. mën nañu rallier foofu. ñu gisaat à 6 mois avant les élections da ma koy résumer rek ñaari question Macky Sall formé gouvernement bu bees. jëlaat ki mu tan candidat wara campagne. muy mhm. Amadou Ba mu reconduire ko poste premier ministre. mu wara togal fi fii askan bi bëgg ko campagne électorale mhm. est-ce que ñaar yoyu méngoo est-ce que tay ñi nga xamanteni genn génn nañ ci gouvernement bi du doonaat benen moyen bo xamanteni ni danañ dem renforcer les frustrés nga résumer la question bi rek parce que. très belle question parce que loolu question d'actualité la bo xamante dañ koy résumer. Ah muy de un 5 mois des élections loo fi réalisé wul si douze mois man jàpp naa ne man ambassadeur depuis Paris Forum Kër Ndiaye Lo mënoo def. Mhm. peut-être mu nekk gouvernement de campagne. te dafay créer ay frustré comme ni nga ko waxee. parce que dafa am loo xamante ne dafa daloon parti socialiste. Mhm. euh, bi euh, Moustapha Niass génnee. et cetera ak yooyu noonu ji ko dañ leen a xeeboon mais après c'est lañ daanoo. troisième la jël après léegi ñu ñaari ténor imagine toi tay yow lu mat 4 ténor ak ah, plus amna ñoo xamantene dañoo top seen activité waxuñu defuñu déclaration mais 4 ténor yi ku nekk amna lay élection législative yi passé chiffre dafa chiffre bu bénéficier ak kan perte perte perte ce sont les perdants ça veut dire ñoo vous avez perdu gis gars def dem dina joxe ay milliards jox ko nit ñi lekkal ko xaalisam ba pare duñ ko voté wallahi azim tak ñi ñuy sous estimer fofu lañu ñu waroon commencé bay sey woom bo démé ba yow sa biir coalition bon sama jàngat la budé yow tu ne peux pas euh, convaincre sa biir coalition wala ñom ñu dem ba ñàkk la wóolu am na ñoo dañ naan waaw yow budé yow sa biir coalition ñom ñoo la wóoluwul ba ñu la dénk et cetera léegi ñun askanu Sénégal nañ ñi def ba wolu la bon man franchement approché au moko etc je le je le respecte beaucoup comme mieux parce que dama ne comme ni Allemagne naan yéen tamit genre même sens chacun avec sa chance parce que kenn xamul lan mooy am dëne demain man am naa sama leader bu ma sañoon fallu falu moom laay ñaanal te gëm inshallah ne fallu parce que jàpp naa ne sax moom moo si gën euh, am avantage. gëm nga ni que Idriss Seck mën na nekk cinquième président du Sénégal. waaw mais

yu nekk Casamance région de Casamance Sonko gagné ñaar Ziguinchor ak na perte sept dafa yokk wala dafa wàññeeku moo tax gars yi toog seen plateau yi waxuñu leen dëgg analyse laa leen jox neuf régions du Sénégal nga gagné Ziguinchor ak na perte sept région nga ne da ngaa kii te yow maanaam quatorze régions boo siy gagné benn kese sans élection Ousmane Sonko du falu ku leen wax dëgg mu wax leen dëgg

Sonko dem na fa dañ kaa dóor. Euh, kii nu mu tudd sax waaye. Euh, kii kii Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye ku jigéen moo ko dafa la jaga ñaaw kii ni mu tudd sax nu mu. Euh, <laughs> ah kii nekkoon Bas. sëñ bi Dia waay nu mu tudd sax waay maire ba tax ñu dàq ko. Abbas Fall dañ kaa duma. Ah. Ah, kii di ah, Aljuma Sow tamit dañ ko duma et cetera maanaam cadre Pastef yëpp dañ leen a duma. waaw moom bu ko mënaloon boppam ne fu mu dem ñoom ñooy gañ kii la askanu Sénégal dañoo fal plus fort reste non laa leen wax comme Thiès. parce que Thiès dafa amoon plusieurs candidats de Benno Bokk Yaakaar Yankhoba Diattara am 15000 voix.

politique de doon on a yenn perspective sociétale mm-hmm. donc ça a été un plaisir quand même de te recevoir sur notre plateau pour la première fois Je mm-hmm. naa la sa engagement ce dévouement depuis qu'on s'est rencontré à Paris en 2018 mm-hmm. on a gardé le contact de lay sur les réseaux sociaux ah, j'ai vu que tu es une personne sociale yaa ngi jàppale sa askan ngi aussi pour ce vrai patriote donc ça a été un grand plaisir de te recevoir sur notre plateau je te remercie dina bàyyi nga tàggatoo. waaw moo de la fin bi di ñaan Sénégal jàmm di baalu àq nag bu dee wax nañ fi li ñu wax lépp wax sunu lu sunu xalaat la rek kete c'est pas un crime nga wax li nga xalaat ax li nga yaakaar mais lépp dañu bëgg Sénégal jëm kanam rek développé kii gën ci Sénégal yàlla na ko yàlla def teg ko fi bu dee mooy président Idriss Seck dama gëm ne wallaahi azim man li ma gëm ne Idriss Seck mooy falu

tey jii la nit ñëw commencé wax ñu xaar ba ñu tëj kaw ñu commencé wax wax sa xalaat mais waxal sax ana am na loo xamante ne am na koo xamante ne dañu war a jox ay chevalier de l'ordre national

tra Sénégal ken waru taal la jeunesse l'espoir est permis et inch'Allah euh, le Sénégal va aller de l'avant merci VIP people number one des médias de la télévision le number one ambassadeur depuis Paris From le le gars yi ko C'est fi meilleure télévision fi bu la vérité fi rek lay